abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën caa am jeex la jeex na bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahumma wa wa barik ala sayyidina qutil arwaahi محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين وتابعيهم وعنا معهم جميعا يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالنفر وكيتي الله بولسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مي سنتي الله يوح الحمد لله رب العالمين مي ميات نتوات في كسوفي جاتا سوسل سي كلام بقي بقي الله يي ñu dajee te yàlla rek tax ci sëriñ bi jàngaloon ñi may bari lu ma koy fàttali ni jullit bi mu nasee walla mu bëgg mu nekk rek yàlla ko defal tawféex ولا من أبو سخي بن جعفر تجلي وتجعش يالا لصوف كن يالا لي تجوبر أملا نجانون كوكو مماي نكو نكو اسمه جورج نكو كان نجي نجي تجكابو في وخي الحمد لله يالا يالا سهلا سرجانتو نجلي نيو sàkku nga jël nuyoo bi jottalil ñu ko rawatina say baay waaye rawatina sa baay Moussa mi nga xam ne mooy borom dëkk nga xam ne moom ak say baay la woon laata baayam ak say maam ni ko Baye Souleye waxee léegi ziyaare guddi bi bii weesu ci saal bi Moussa bi ñëwee fa mu baaxoo woon di toog dafa ñëw toog xam naa comme organisation yi bi mu demee léegi am kenn ci ñu yore woon sécurité bi te nit ñi xàmmeewul leen ñoo ne moo góor gële de fa mu toog ne la yàgg na fa ci suba ba léegi mu ngi fi toog rek te man xamuma ko ma ne ko bokkoo kooku yàgg naa toog foofu foofu palaasam la walhamdulilah kon ku yàgg ci mbir mi la nekkoon fii ak ay bokkam mel ni sëriñ Moor yal na yàlla yokk leeram ku mel ni sëriñ Baawu kazalik yal na yàlla yokk leeram waaye lu jiitu loolu seeni bàyyi sëñ Antu ñu ngi sant ñu ngi jiital si jottali suñu nuyoo sa bokk yi nga dëkkal yépp say baay ak say ni ma ko waxee ku mel ni góor di seet nii naka noonu daayira murit bi ak yeneen dawaayir yi fi nekk yépp daayira murit bi seen jawri ñu dégg kàddoon bu rafet bu jot léegi may nuyu it bi nga xam ne ñoo jógee ci conseil municipal te nekk ca bopp ba monsieur le maire El Hadji Cheikhou Thiall ñu dégg kàddu léegi ci monsieur Wilane ak sas lu mu mujj wax kàddu yi rafet yu am yaakaar dégg it taxawaay bi nga xam ne am lañ ko duma wax ci jaata wala ci programme bi waaye ci commune bu Mbëlëm ak Cheikh Thiam rek ñu koy dégg ci taxawaay yu ci biir Sénégal waaye rawatina ci biir commune am may nuyu it daayira bi nga xam ne mooy daayira daarul muhibbina jiite ko suñu bokk taalibe Abdou Diop nuyu bokk yi fi teew yëpp jógee ci dëkk yu fasante ko jaay muqaddam ak taalibe ñu ñëwaat fi beneen yoon ànd ak délégation bi ngeen di gis Euh, ki ko jiite di le porte parole suñu bàyyi El Hadj Ba nekk ci wetam El Hadj nu Cheikh El Hadj Ba waaye nekk nii ci sama wet Cheikh Moustapha Bachir nga xam ne démb ba léegi mu ngi ci liggéey bi ak yéen nekk ci wetam Malick Wilane mi nga xam ne mooy coordonnateur national bu Daaru Muhibbin shi ahmad tijani ba ustaz salum ada ñeneen ñi ñu àndal ñëpp rek ñu ngi sant yàlla di ndokkeel ñëpp Moussa ni nga ko waxee ci sa njëlbeenal kàddu ma dégg la nga ne jaata dama ko def muy sama titre foncier te maa ko waxoon daaw xëy na ci beneen expression ne jaata sama dossier spécial ak personnel te noonu la loolu dossier bari yi teg ci taabal dama na jaata moom bu dossier bu xam ne dama naan jox leen ko mu xoolal ma ko wala mu toppal ma ko man maa koy teel sama bopp lu tax ndax ñoom jaata démb a tey waaye su lay jaar na tuuti ci taarix góor ñu dëggu ñu fi nekkoon jël liwaa bi jox ko góor ñu dëggu ba tey jii mu ñëw ci doom yi lenn ci bàyyi di leen gunge ñu yàlla def la soob la ko soob ci ñoom ca maam yi yàlla yàlla leen ñu fi des ñëpp ñun ñëpp yàlla yàlla guddal suñu fan ni ko bàyyi su lay waxee rek suñu sëriñ Maolana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass euh, ci la yàlla feeñal ci zaahir lii ñuy tuddee faydu dafa yàkkamti am ñu naan Ibra dafa dëkk sank ak cank am ñu naan am ñu naan am ñu naan waaye ba fii ñu toog ci deux mille vingt trois dégg gu ñu ku woote faydu sax ca ba fii ñu toog ku dul moom gisuñu it ku ko woote indi firnde buy wane ne yaay borom ba fii ñu toog ci 2023 ku dul moom Mawlana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass sëriñ boobu nag nga xam ne ba boroom ne maay amoon na kenn ci ay kilifa daf ne woon Ibra dafa yàkkamti mbir mi du dem ndax xatam yi ñaar fukk juróom-ñeent. du ma dugg ci ruq boobu di guddal waaye dama bëgg wax rek ñaar yoo xam ne sëriñ bi daf ko defoon muy ñaari mbagg yu mu doon naawee walla ñaari ndëggu yu doon seqee ay jéegoom wane ci zaahir ne mooy borom fay ko ñaari baat yooyu mooy ci atum gàddaay gi 1355 am naa yaakaar day war a tolloog kon mu ngi bëgg a yàgg day mel ni juróomi at rek wala juróom-benni gannaaw bu mu bu yàlla feeñalee fay bu ci moom dafa daan bari lu mu daan ñaan muy Mawlana Cheikh al Islam da leen bari lu ngeen di di ñaan seen borom. uduru yàlla moo ne ñaan ci xel sax ci calcul munoon ngaa wax ne jaru ko ndax moom moo bind mooy wërsëgal yutimu nii wa yasqii nii ana kon lu fi indiwaat uddu ñaanal bàyyi ji xëy joxe dépasse ci biir kër gi yaakaar naa jarul doom yi di xëy di ñëw walla muy wër doom yi naan leen bindu wax leen ma yéen ñi bëgg añ yaakaar naa jaru ko bu yàlla ne udduru bàyyi ci xel moo tax sëriñ bi dafa bari lu mu daan wéet di ñaan dégg naa almarhum almarja oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu ne te ñu bari liñ ko xam rek mooy ci jotaay yu mel nii di wax shariatu bu leer xaqiiqa bu wér di leeral rek nekk professeur fële ca Ghana ca institut Kwame Nkrumah bu Accra ca Ghana ak yeneen ak yeneen dégg naa ko mu ne yéen mbooloo mii bu ngeen xamoon li ma dugg ci ay xalwa di ngeen ma ragal mu ne waaye waxuma ko nag ngeen ragal ma dama bëgg rek ngeen xam ni mbiri tëddee kon sëriñ bi dafa bari lu mu daan ñaan muy Mawlana Cheikh al Islam ñaanam yooyu nag daf ci am bu mag bu ñuy wax kanzul awliyaa yi ba ci biir dangay fekk moom ma ne la ci année trente yi mag naa ne wajaal naa abidal mahabbati wal xidmati yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def ma may jaam bu xam ne day am cofeel day am mbëggeel ci yàlla ak ci nag waaye wal xidmati day mën a takk ndiggam te xidma liggéey rek mu mel ni boo mënoon a tënk na nit ki li gën a gaaw ci moom ndax bàyyi sax daf caa teg na wa aali darajaatina su boobaa nag yàlla nga kawel suñuy daraja ñaara ngoog al mahabbatu wal xidmatu sëriñ bi moo ko ñaan wa wajaal naa yow yàlla sama borom ci wéetaay def ma abit wala def ñu ëmbaale ñu ñun sax ñuy ay jaam benn dañ nangoo nekk ay jaam jaami yàlla bien sûr waaye abidal mahabbati jaam yu am cofeel yu am mbëggeel yu am détermination yu am dogu ci li nekk ba doo déngi déngi boo amut mahabba cofeel ci li nga nekk doo am dogu ci li nga nekk boo amul dogu ci li nga nekk doo wéy di nga wàcc yoon wala nga wadd wala nga taxaw moo tax mu teel ko ñaan waaye walla xidmati liggéey rek su boobaa nag wa aali darajaatina ñaar yooyu nag mu mel ni gis nañ ndaw yi jaata tey tey sax duma wax ci démb tey jii lay wax man nattu leen nattuwaat nattuwaat nattuwaat gis ne ñu ngi ci yoon woowu yàlla bu leen ko wàcc gis naa mahabba gu wér te képp ku xam ne nag yaa ngi askanoo ci daarul muhibbiina faw nga am dono ci loolu faw nga am cër ci loolu ndax Maulana Cheikh al Islam mii ma wax leen ne moo toogoon ñaan ko 35 34. ba 45 46 mu ñëw ngudi ba toog ñu néew ci ay baaraam tey la tant yi di toll nii tey la yomb ñu ne monsieur indi na nangam ci ay saako ceeb nangam ci enveloppe booba dara am ñoo ñu néew toog mu wax bayti yooyu kii doon wax léegi ne daarul muhibbiina ñii dee am nañ cofeel ñoom yàgg na ne ñii de boroomi teraanga lañu ñii de boroomi yar lañu mos naa toog ci benn jotaay dégg ku ne sëriñ diw moo indi yar ci biir taalibe bàyyi ci moom lañ gisee yar taalibe bàyyi am yar ci kanam doomi bàyyi maa ngi toog ba ma jëlee ma ne tubaab de danay wax ne on ne peut pas être plus royaliste que le roi kenn mënta gën a niru buur buur ma ne sëriñ bi nga xam ne ñun moom la ñuy mooy borom mbir mi ma ne moo ñëw bu digg ngoli ba am ñu mu toogal ne ñii de daarul muhibbiin al kiraamil ulama ñii de am na ñer ñooñu sax dootu ñàkk yar ba bis bañ ci dem sëriñ bi wax na ko ma ne ko comme sëriñ bi moo ko seddeel boppam ne ñi am nañ yar bu keneen taxawee bëgg koo confisquer bëgg koo jël ne mbooloom diw de ñoom ñooy ñi jàngal nit ñi yar ma ne déedéet ñele ñoom sëriñ ñoo am yar ba sëriñ nangul leen bind na ñoom am nañ yar kon ma ne ma dellu ci baatam mahabbatu ba sëriñ bi ñaanoon dama ne daarul muhibbiina dem ma moo taxoon ma ne daayira yëpp nañ tudd daarul muhibbiin yaata daarul muhibbiin ba tey ni ko ki doon waxee ci euh, xitaab bi léegi oustaz Ibrahim boo demee ba fu ñuy wax Lérida ca Kisona ca Espagne daarul muhibbina ma nga fa jiite ko seen mbokk moo dee wilan boo demee ba fu ñuy wax Carpenedo ca Brescia ca Italie seen mbokk alaaji baabu ndaw ma nga fa jiite daarul muhibbin boo demee boo demee boo demee boo demee kon bu ko defee mahaba googu wax dëgg yàlla gis nañ ko ci ndaw ñi waaye mahaba xidma moo koy leeral liggéey bëgg naa rek Cheikh Mahamadul Mahi Cissé Ali Cissé danaa koy dégg mu ne maa bëgg bàyyi mu ne bëgg bàyyi ko gën leer na al mahabatu xidma moo koy wane mooy wane ne yow bëgg nga ñëwal ci suratul layli ñëpp ngi koy jàng fa amma man aata wattaqa wa saddaqa ba ca topp mu ne la wa amma man baxila wastaxna wa kaddaba ñaar ñaari nit rekk la ñaari ñooñu it kenn ku nekk ñett rek la yore ñetti naar boobu fa amma man du njëkk ji ne ñëpp fexe bokku ci waxuma taalibe wala déedéet mais képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg yegg fa nga jëm faw ni ko alquran waxee gannaaw bi mu waxee fa am maaman ñett yooyu bàyyi ci xel aata suratu lay li sax li ko li ko sababu nuzul li tax mu wàcc dañ ne dafa am benn waay yàlla jox ko teraanga tàndar mooy yu bari am ci benn tàndarma banqaas yi dafa yoore ci kër gi nekk ci wetam xam naa ne borom tàndarma ji ndaw la santoon waxuma tamsir yow bokkoo ci tàndarma yu bari ci àll ba ci biir këram genn tàndarma rek la banqaas yi du ci genn kër bu ñëwee ci kër gi li muy njëkk yittewoo mooy ne ci ci kër waa ji seen ndax tàndarma gi yore woon wadd na fa wala nee bi sax dafa dugg ci biir këri waa ji fekk doom ji di for ba jël benn dugal ci gémmiñ gi mu dugal baaraamam génnee doomu tàndarma gi for tàndarma yi génnaat loolu nag naqari borom kër gi comme ñoom ñëpp dañoo am kilifa seen kilifa moo doon yonent bi sallallahu alayhi nit day am kilifa boo amee kilifa doo fajal sa bopp doo fayul sa bopp da ngeen lay baax ko du fajal bopam du fayul bopam borom tàndar borom dom gi ñu domi tandar tàndarma gi ci digg këram dafa waaxu rek dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam la dem ci sa kilifa ne ko li ak li ak li mo xew waye naw yonent naw kilifa gu mat daf ne o len ma o oo togalew mu ne ko waxal mu wax mu ne ko non la demé mu ne ko waaw sama tàndarma la dafa wadd ci këram ma dem fekk doom yi di ko lekk ma jël ko mu ne ko noonu la demee mu ne waaw joxu leen kilifa gu mat tamit mu ne ko man nga maa wecci tàndarma gi ma jox la tàndarma bu ñu mel ci aljanna donc kilifa gu mat tarxiib mooy jiitu tarxiib boo jiitee mbooloo faqat dini tarxiiba ala tarxiib maanaam xemem lool mbooloo mi pour ñu bokk pour ñu def bu leen di ragaloo rek maanaam safara safara safara dëgg la am na waaye lii déedéet da leen xemem loo ku def lii am lu baax aljanna ku def lii am xuroo ku def lii ku def lii ku def lii yonent bi ne ko tàndarma gi dama la ko bëgg a wecc ak tàndarma ca aljanna mooy boo dee tàbbi aljanna waaye daf ci am nit ñu xam ne Sidi Ali Cissé radiyallahu anhu moo doon wax ne ñetti nit yàlla kay ndaw la sant mu ne kenn ki danga ko naan ngi nele mu ne mu waaxu rek dem dugg kooku moo sant ndaw mu ne keneen ki danga lu mu fay nga ne ko fiiha maa laa aynun raat lépp a fa loo soxla ci bànneex rek ma fa mu ne mu waaxu dem kenn ki da nga ko naan aljanaa nga ne leen mu ne la lu mu fay wuti nga ne ko lépp loo soxla ma nga fa mu ne la maanaam dew mu ne kooku dañ koy jëng omat di diri ba biir aljana boo tinkee tënk bi mu génnaat da nga koy yeew ci biir ci biir garabi aljana yi mu door a toog du door a jëriñu ci aljana ñett nitaam xam nga ku yonent bi ne wecc ma sa tàndarma gi ma jox la ak tàndarma ci aljanna mooy sa aljanna taxaw na waaye mu ne déedéet ndax man daal tàndarma gi daal ni meññee yujibu ni samaruha tàndarma gi daal meññeetam mi daf ma yéem dafa neex lool ma ne meññi lool moo tax am na ñu xam noo dugal seen bopp yi dara moo tax sëriñ bi nekk na fi naan xataa yonent bi ñëw leen ñëw leen ba dem am na ñoo xam ne mos ñoo dégg lu muy wax bu la jaaxal bu la yéem darsu biñ ciy jàngee mooy yow mi nekk ci mbir am ci mahabba am ci xidma sax ci da dégg ku ne dafa goog bàyyi daf ko bind da dégg ku ne waxul dëgg bàyyi daf ko pind am na da nga dégg ku ne day yàq mbokk gi bàyyi daf koo bind alaaj saaroma alaaj maas da nga dégg ku ne dafa yàkkamti waaye moo ko bind da nga dégg ku ne iftira alallah day duudal yàlla waaye daf koo bind li may wax ne waaye loolu lépp saxal rek ca mbir ma xam nga yonent bi ne na kaay ma jox la tàndarma mu ne ko daal yoo jiwu nii xamoo na tàndarma gi moo ma gënal yonent bi aljana aljanay tàndarma tàndarmay aljana fan moo tax lu la waa ji mën a wax rek saxal ci li nga demal rek am benn waaye nekkee moom mu ngi lu li yonent bi di wax ak keneen ki bi waa ji demee rek mu dab ko ne ko yaa Rasulullah mu dem ci yonent bi ne li ma déggoon ngay wax ak waa ji ndax noonu lu wér la abaa wa maa yantiqu anil hawaa واجب داو دم دبي واجب نقول لي ما تقولي ننتبه دوخ نخمن سما لا جوه من لا ويجي جنن تندر ما نجوه ما كو من مجيل تندر مجيء ننتبه دوخ نم ما يخرج ما ما يخرج جنا واجب نبا ليدي تندر مجيء دفع من مني دفع نخ واجب نكو نخ سما لا جوه جرو أربعين نخلة ينفكتات تندر ما يمني نمو bi ma jox genn tàndarma bi mu ne ko ndax da ngay caaxaan mu ne ko déedéet mu ne ko ñeent fukki tàndarma mu ne ko waaw mu ko wutal seede mu ne diw diw diw kaay naa ko sama tool bi ñeent fukki tàndarma nga fa ko mu joxuma tàndarma gi rek ñu bind seede mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent bi tàndarma gi nga doon wax waa ji jot naa ci wecci ko ñeent fukki taati tàndarma yonent bi ko loo ci soxla mu ne ko jëlu ko yaa Rasulullah jox naa la ko yonent bi ne ana borom kër ga tàndarma ji yoore bànqaas bu yoore woon dama woo leen ko mu ñëw mu ne ko jëlal tàndarma yaa ko moom lii mooy lii moo wàccee lii moo sababu nuzul wal layli idha yaghsha ba tey jii na ci loolu la ñuy tuur moo tax yàlla commencé bu ne wal layli idha yaghsha guddi bu ne tëriis lëndëm tëriis mooy kooku ne du ma jël tàndarma ga ca aljanna idha yaghsha idha dafa dafa am lu dafa am ñu xam ne kenn mënu leen leeralal kenn mënta leeralal seen mbir kenn mënu leen dimbali yàlla nañu incha allah dimbali ñooñu ñooy wa layli ila yaxsha ahlu wa layli yàlla nañu incha allah musal guddi gu lëndam tëris loo wax rek ñu ne déedéet dafa yàkkamti day woote day lii nangam nangam mënoo ci dara loo wax rek ñu ne lii loo wax ñu ne lii mu ne wan nahaari ida tajalla borom ñeen ñeen fukki garab yi joxe ko ci genn garab yooyu wan na xar yi daa tajal bu ci gulee rek ñu yomb dimbale dégg rek yow kuy wax di digge nga def effort yow ba jot waaye ku am tàndar ma fële yow looy war a am fii waa ji ellentewoon mu dégg wax yonent ñaar rek la wa layli daa shaa wa nahaari daa tajal la xoolal nag ban la yàlla njëkk a wax mooy wallayli mu mel ni wallayli ak a bëri ak a bëri ay forme ak a bëri ay formule maanaam lëndëm ak a bëri ay façon ak a bëri ay xeet ak a bëri ay gaay ak a bëri doole moo tax yàlla commencé rek ne wallayli la yaxsha layli dafa bëri dafa bëri façon dafa bëri ay mandarga dafa am doole dafa bëri xaalis dafa kaccoor dafa bëri ay moyen moo tax yàlla ne wa layli idhaa yaghshaa moo tax mu la il faut faire attention du lépp luy melax or la ni ko misaal mi di waxee mu ne la wan nahaari idhaa tajallaa mu mel ni faw nga sonn bëreeg bakkan bi mu set nelaw yi neex mooy wa layli idhaa yaghshaa la lay dimbale faw nga jóg mu mel ni toujours wala élimination mooy jiitu xam nga ne bëreet ci lal bi dem jàpp ci ndox mu sedd ni sol yére gi dem julli ci diggante boobu wala li mu ngi fi. bu la yàlla dimbalee nag nga ne bëreet jóg jàpp dem te jàkka tax wan nahaari ila tajalla moo topp ci wala li gàmmu ga fii ba jaata dafa sori tant bi ñoo leen. ñëw leen ñëw leen mooy wallay li jafe-jafe xol bi toujours wallay li mooy njëkk a gaar man joxe naa démb danaa joxe tey wallay li waaye wan nahaari ida tajalla waaye faw rek kii jëriñ mo yàlla dimbali ko mu xam ne faw wallay li ida yaxsha toujours moom mooy njëkk a melax melax damaa sonn manuma bàyyi sëriñ bi toog ma wala jimaas ñoom ñoo ko nettali nettali naa leen ko lu bari mu ne moo doon wax ne bu mbooloo waxtaan alaaj baabu mu ne nga dégg ku ne man li ma rek lay def mu ne kooku la mën sax du ko def te jaru ko kañ xam nga ne mënoo ko foo dégg ku ko wax la mën sax ko def waaye man maa ci teg ne ana kan ci ñun moo tële def li mën كان موتلا دفل من كان نيم كان موي ليغا مانوت ني جيمكو فاما من اعطى اعطى ньо ньой اهل والنهار اذا تجلى فاما من اعطى واجي nga xamne day joxe joxe nak ci ci ci ci المبنى والمعنى sa poos joxe wala joxe sa bakkan na ko aaya ba tënkee inna laa shara min al muminina anfusahum wa amwaalahum joxe mooy bokk ñoo leen yëkkati weñ bi joxe la ñoo leen ñu defar tant bi joxe la ñoo leen ñu bale dëkk bi joxe la ñoo leen ñu sàkket école bi joxe la ñoo leen ñu xoddi xod xoddi dëkk bi xoddeeku joxe la ñoo leen ñu bale jàkk ji jigéen ñi joxe la fa amma man aata joxe du ñaari dërëm yi wala dugub ji wala lii ñu yaakaar déedéet dox sax gis ne fii ëkk gii de ci yoon bi wóorut nga xëy dem buddi ko shaklun min ashkaali aata joxe la waaye ba ci gën a kawe nag mooy alal wa jaahalu bi amwaalihim alal moom dafa sox sax ci xol ak naa fekk moom du yegg ci ñaar yi joxe alal ak joxe bakkan wala bëriwut moo tax toujours rek wa jaahadu bi amwaalihim wa taqu anfusihim kon aata wattaqa da ma ko firil léegi ne mooy nga ragal yàlla rek wattaqa mooy li ngay def nii nga def ko ni ko yàlla bëggee def ko te yàlla tax wattaqaa ji loolu lay firi fii wattaqa mooy taqwa taqwallaahi waaye aataa joxe na def na te yàlla tax def na ko it ni ko yàlla bëggee ama man aataa wattaqaa lii ne lu am solo la mooy bul def dara am na ku ne ma suñ dëkk dee xaramu jàkka ja maanaam dingere jàkka ja dafa am ñu fa ñëwoon di tëgg ay ndënd di laaj ci yàlla di tëgg ay sabar wala ñooñu de fa amaaman aata wattaqa waroon nañ ci bàyyi yàlla moom yàlla rek lay doon booy def ci yàlla day ànd ak wattaqa ni ko yàlla bëggee ni ko yàlla tëralee déedéet kenn mooy ñëw waaye dañoo def lii ngir mbooloo mi ñëw déedéet mbooloo mi yow sa yoon nekkul ci lasta alayhim bi musaytirin yow jottali leen rek moo la war dañ koy def bu mbooloo mi mën a ñëw nga fekk ma ne muy wat mu nekk ci buntab wat taqaa na fekk lu yàlla bëgg na fekk lu dëppog yàlla waaye wa saddaqa tam dëggal wala dëggu wa saddaqa bi naa nee na mooy mu ñenn ñeneen mooy dëggal aljanna waaye tout simplement rek mooy nga dëggu dëggal mu mel ni ñett yi boo ci bàyyee xel daf ko waru ci lépp loo nekk da nga yegg fa nga jëm ata mooy ñaq liggéey ndax balaa ngay joxe faw nga am loo joxe faaxe du seen la yowti kon buñ ne ata joxe na mooy da nga dem liggéey buñ ne ata mooy joxe na xam-xam mooy danga dem jàngi buñ ne buñ am na ngërëm mooy ne liggéey nga kon aata demal nga liggéey aata ndax nga mën a joxe demal nga xam ndax nga mën a xam le aata demal nga ñaq ndax nga am ngërmande wa ridwanun min allahi akbar waaye wattaqa xam lu luy jëriñ lu yàlla bëgg luy jëriñ wattaqa liggéeyal lu dagan te boo liggéeyee bul yàq daf koy ci lu yàlla bëgg léeg-léeg yow kenn la waaye wa saddaqa bil xusna aaya bi li muy firi mooy mooy mu dëggal aljanna def li nga xam ne moo lay mooy wane ne dëggal nga ne aljanna dëgg la ci yenn firi yi waaye mooy na nga na nga dëggu yow it boo dëgguwul li ma la wax di nga dengi dengi di nga dinga li ca topp mooy mu ama man baxi la al buxlu mooy ku téye boppam rek nañ dem nga ne demuma nañ joxe nga ne joxewuma indi sa doom mu jàng alxuraan nga ne jàng du déedéet nañ def lii ci dëkk bi nga ne déedéet baxi la waaye nañ joxe nga ne déedéet wastaxna mu doyloo boppam walis li nit ñi nag wala li yàlla dele wala li yàlla tëral wa kadaba bil xusna daa di weddi nag lépp lu xam ne lu rafet la jikko ju baax la maanaam ñett yii mooy alak nit yàlla nañu ci yàlla musal baxi la mooy ku tee boppam ak boxlu toog rek lépp lu ñu wax ci lu baax nañ def nga ma bañ li ci gën a garaaw sax nag mooy di gàllankoor ñeneen ñi mooy was tax naa doyu lu moom gis boppam ku bëgg a dem mu ne toogal kii daf ñuy fontoo كيلي كيلي كيلي واستغنى وكذب بالحسنى يما وراك دار دو شي دك باي ويدي صاح لب رك لو خامل من لا دفر كلا يالا نينا كو فسنو يسروا لليسرى نينا لب لوم سمبو داي يوم يالا كنا فسنو يسروا للعسرى درام بيومبو لب ما يجفى يالا ان شاء الله مسلمين

président gouvernement ministre conseil des ministres maire yi député yi ñooñu la yàlla di njëkk laaj borom xam-xam yi jàngalekat yi door a laaj ña ci topp li ma bëgg foofu mooy maa ngi bàyyi xel maa ngi bàyyi xel ñëpp maa ngi bàyyi xel jaata waaye nag sant naa yàlla lool ne gis naa fi ndaw yu dëgër ndaw yu bëgg ndaw yu takku ndaw yu xam ne la misiri waxoon ca watiir ba ko jëloon ba mu jógee Mauritanie ñëw jël watiir fas wi am xiidu di dox ak moom di dox moom ba Medina mu wàcc mu ne watiir bii dee fas wii dee jàng naa ci moom nu nit war a àndee ak sëriñam ñu ne ko loo jàng mu ne fas wi xiidu bi ñu ko defal tax na gisuma mu gestu benn yoon ci yoon bi bañ ak si fi jëm mu kon ku nekk war naa am xiidu ne jàkk fa nga jëm rek moo lay tax gaaw a yegg wala sax mooy tax nga yegg loolu nag gis naa ko ci ndaw jaate yi ci du problème mu dajale wala joxe déedéet loolu du yëf ku xam nga di ba Cheikh Alaj Baaw Ba xam nga ne yoonam dajale indi leen amut ci ndax ba muy nelaw di wuy ci boromam maa ko tiim ak ñeneen public bu weex la sol te man mii nit nit na ne ma góor gi bu ma amee loon téeméeri junni ku wér ne ma waaye banaa ko maanaam dañ ko fayal ay bor néeg bi mu fi bàyyi daloon sell kon ku ne xam na ne programme indi leen bokkutoon ci te bu ko waxoon nit nag ba fi li fi ñu bari bàyyi nag ba léegi nag loolu dara du ci soppeeku moo tax sax bi Abdou di wax léegi Diop nag. bi yaata amoon xaalis ngóti ba dinañ bari xaalis ngóti ba lantinoor la lu ñëw rek day jàll lu ñëw rek day jàll amuñ droit retenir dafa nekk ne lu ñëw daañ jottali waaye nag ñuy sant yàlla ci ne jottali yooyu nga xam ne lu ñuy jottali la ci suñuy bokk taalibe kenn mënu leen ci kenn kenn benn dëkk mënu ci jaata ci lépp nag ci tool yaag joxeeg teewaat waaye ba ci ëpp solo nag mooy tënku ci ni Cheikh Alaaji Baabu ma doon dundee faydu te loolu dafa am solo ci man keroog ba mu nelawee am benn rajo ñëw laaj ma ne ma tënkal ñu liggéeyu Cheikh Alaaji Baabu ma ci fayda bi ma ne ko mooy sàmm faydu bi dund ko ni ko boroomam bëggee woon Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ñaata gi nag gis naa leen ci loolu lu leen wàcc yoon fi fa amaa man aata wattaqa wa saddaq bil xusna la cay topp rek fa seen yasiruhu lil yusra la cay toppaat wa amaa man baxila wa saxna kuréel boobu yàlla nañu ci yàlla musal fa seen yasiruhu lil usra waaye nag kuréel bu mujj bi moo ëpp doole moo ëpp doole moo gën a leer tant moo ëpp ay moyen moo ëpp waaye la leen yàlla dig façon yasiru li los la ndax lu tax wa maa yughni anhu maaluhu ida taradda alal ji lu mu bëri bëri muy alali maana wala alali madda te bokkoo ca kuréel bële mu ne ida taradda ala ko rek yàlla nañu ngi leen noteel bu baax yàlla yàlla defal jàmm ñu ngi gërëm waa dëkk bi yëpp ni ko ñëpp waxee daayira yi fi nekk tijaan murit ñëpp góor ñeeg jigéen ñi di ba gërëm beneen yoon waa conseil municipal bi rawatina monsieur le maire daaw bi ñëwee dégg nañ taxawaayam. ñu koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq suñu Moussa jërë ngeen jëf góor gi seet jërë jëf antu li ma la waxoon daaw tëjee woon ci mooy waasil wéyal wa tawassa na gën a yaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. a abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex na